merci beaucoup mbokk yi dégg ngeen léegi ki nga xam ni mooy nday fay jóge Jaxaaw li mu wax wax na dëgg wax na léegi cuucuun dina ci dellu ndax la histoire la boo xam ni Sénégal war nañ ko xam taxumaa jóg sax naam waaye fokk ñu coos foofu wax leen lan moo waral géwél yi di wax xare ba ca cuucuun dañu yàq baat bi nag du cuur cuur cuucuun la lu tax ginnaaw ngi wetum kor ngoor mi nga xam ni tafsir ma ba jaxu dafa ñëw bur sin kumandoo fen fa mag dafa woo siin ni leen fokk ñu seetaat li fi am ndax lii nu tafsir def ñun doomi Sine duñ ko nangu jéem a wut fa yónni am sart yu mu teg ci ki mu koy yónni bi nu dajalee xalaat yi ñu ni semu moo mën a dem fekk tafsir Maba Jaxu waxanteeg moom ba mu àggee wax moom la muy wax ak moom ci pale bi ci ñooro dim di ko buur si nee na nga fekk ko somb fa la ndaje keroog bi xeex bi méttee ñu dem somb boo demee somb nañ ci dellu si léegi ci élément am na fa benn déeg bu ñuy wax fandaan déegu fandaan waaye lu jiitu loolu bur seen kumado feen woo siin ni leen wax leen ñu xas-xas loo nin daan defee kajoor ak bawol nen ko daan defee waa boofu wax dëkk yëpp wax am ñu ni bu keroogee dinaa taw puudar yi nu indi dinañ ko tooyal ba du duñu ma a agsi ci ñun ñenn ñi ni bu boobaa bu nu yël boo lépp ay yemb doon ñu daw ci kaw waa kër Pape Maba Jaxu xeex ba dem cuucu nag boo ñëwee ba fàndan ndox tuuti nga koy séen ndax diggante somb ak keexam mooy fàndan fi ma ba Jaxu daanu am na lu mat juróom benn kilomètre wala juróom ñaar damay bàyyi maawo mu indil ma somb googu nga xam ni fa la yande nekk fa fekk baax fa lañ ko suul ñu ànd moom set li nga xam ni fa la yande ko tëdd ak bàmmeelam indil leen fàndal indil cucun ñu doog ñëwaat ci plateau bi. gaynde gaynde gaynde bugul moom yàpp lay dunde. gaynde gaynde gaynde bugul moom yàpp lay dunde. jove mbañik te yow ma joor timban ya ngor waxe. gaynde gaynde bugul moom yaa bu lay dunde joobe jooja baram dawroon re muy simbaan yaa nguur ye mbay joob gaynde gaynde gaynde bugul moom yaa bu lay dunde iye mbay ñeeg maya koor joob re muy simbaan yaa ngooroy mbay joob gaynde gaynde gaynde bugul moom yaa bu lay dunde joobe koor ye kumba moode joob gaynde fii ñu taxaw ci somb ci armeel yi maa ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla xare àjjana yal na suuf sedd seen kaw ndax ñi ma jur yépp ñoo fi ne ngeen njëkk fee ñëw tey ci sama bàmmeelu yaay Yandi Codou moo tax ma bugg balaa ñuy wax dara ci sama yaay ndax dugg naa ci biir ba ñaanal ko ba jooy sax waaye balaa ma ciy wax dara bàkk bi nga xam ne moom la doon bàkku bi muy dund dama bëggo kii Birama Mbaye bakkal ko ko bo sagin bo sagin bo etel na Ndama Seen mu ne mu ne woon it bi muy fecc golo wàcc leen seen morom yéeg golo saasaay bi li ngay mën a yéeg yéeg boo yéegee di piton di nga wàcc yaay yaay yaay seen yokku anole na daanele yaya seen yokku yayi commissaire Mboye yoo yaya seen yokku yande tey reseeri seen yaya seen yokku yande tey njakkoor seen yaya seen yokku yande tere wazene ya yazen yoko dano lena danele ya yazen yoko yayi ay dambin baye ya yazen yoko basi lof ne lola yo yi papa nguur mba yee yaay ya seen yokku ndoko rënge duut seen yaay ya seen yokku o teexe tabu nguur mba yee yaay seen yokku yaay ya teexe yee yaay seen yokku yayi faatu jin mbaye yayi seen yokku mami papa Jóob yande seen yokku seen yande ay damba ya loola ya booy seen yokku la ya boya ande sen yoko ya ya sen ya na nya ya ya sen yoko dano yoko kan dia boya ya sen yoko ya ya bo pa adam mbai ya ya sen yoko ya seen yokku yàlla fa yaay booyu moo seen yokku ah, di ko san di sant sama yaay ma jigéen ñing ñu di ko wax ma jigéen ñing moo jur yaande ma yar di ma boot ba attanatuma yaandi ko ci boppam fi mu débétee woy ba jiitu géwél yi ñetti at ci njongu séeréer ñaari jël si sama yaay ñetti sama yaay jox leen yaandi kodd fa wax boof yaandi dafa sey si fii boof la ñu ak euh, moon bi mu ko defee at yooyu ñu ngi tuddoon Dator Gus Ñing Ngooseen Jegaan Sar karoog ba ñu yublee penk ba ñu di leen yeewi di yaandi kodu xar bu xonq ci rur ko jëkka wewe booba ñetti téeméer am na doole ñu tegal ko ci ñetti téeméer yaandi député ñëw foofu fekk fii suñu bajan ñi laa job ñu laa job di ko teete di ko teete ba yàlla ak bi nga xam ne mooy def mbir lan da ni joboo yoon ne mbir mbir la yàlla mbir la waaye ku daan ki dekk yàlla yaa di mbir yaanda ko mbir la woon yàlla ko gemboon ndaxam man sama gara tabaski mbay Ousmane Mbay séeréer ñoo ko doon dar na ne xanaa léegi xale ñoo jël dañoo dañoo màggat waaye bakkam bu yees boo dégg ci woyam cosaan loxo gi wi ak loxo Ousmane Mbaye ak ndib see la tabaski suñu garaag bu baax goo xam ne yàlla na ko yàlla yërëm kookoo ma yar moom tam maa ngi koy gërëm bu nekk doon moom amoon naa doole bandi bandi goo xam ne naga ni sax jot nañ ma bu yàgg waaye moom ma doon door rek te ñemu maa feeyu yaa ne ko di topp ci Senghor na beret yaa ne ne beret Sëñ Fallu Mbakke ne beret ñoom ñett ñu Senghor ba mu duggee Gosaas la mu jëkk ñaan yàlla ko mooy ndox mu may ko ko ñu ñu bëgg ko xam nga naka jig dafa watti muus mu tuuroo ko su muy ay garam bu bam ak complet am yi ñuy ted mu yëkkati épaisse gi def ko ci ron bi solaat beneen complet Cheikh Fall Baye Gor Yandi Koddu ba Cheikh Fall Baye Gor ñëwee fii lakowe chefal bay gor may sa bigg kumba faal yaa ma ci gënal ci buntu kër Malick Faye gale ñu jóge foofu magal jot ñu dem dem si yàlla tabaski yor tamaam ñu ànd ndax am tama gi ñu ngi ko fàtte sax Mbàkke bañ demee Tuba mu ne waay yaande ana loolu ñu gàddu woon muy ndong ndong yi waay mu ne ah Fall ñu ngi koy bàyyi Mbàkke mu ne ah nangam taal na jëli ko waay foofa la yaa ne ko du commencé ci Cheikh Fall Baye Gor ga yi yabuñ la Cheikh Fall Baye Gor sax ci jumaa ji ñetti jàllu xendeer la woon talbe yëpp diwol Cheikh Fall Baye Gor jëkk a pare ba pare bale ba pare bale ba pare bosam mu ñeent sëñ Fallu Mbakke gën seen waay ku dëkk ku toj bii mu ne suñu fa eh, Baye Gor talbe mu ko def mu ne bii mu ne Gor mu ne bale nag mu ne Baye Gor mu ne ko waaye kon nag sax may Baye Gor waay man bàyyi góor yaa kalaat Cheikh Fall bàyyi góor ma déggen demba may sa bigge Kumba Fall dam ca kër góor ñi suñ la ne suñ ñaari tama yi jib ñu xam wutu buntu kër gi taal bi yëpp daanu leer Cheikh Fall bàyyi góor ne yaa koddu mu mu ne waaye ndongo bu jigéen bu dem kaw waay ne ndongo bu jigéen bu dem kaw man sama bët moo man sama nopp moo dégg sama kanam it keroog la ma wax ne waa noo tudd ma ne waa seen mu ne waa lay tudd naa la Aliou Sène man mi kon yaa ne mu dem Cheikh Ndigal bi xam ne boobu bu ñuy dem kër baayam baayu góor nii la toll wallahi nii la toll bu jëloon tàngal jox ko buy moj ñu di ko jëkkante di ko loqal ñax ñu ko nii mu ngi toll na la waaye nii ñu meeb ko ba kere googa ma nit ñoo ko sakk suñuy xaftaan saaku yi jeex boo amul saaku nga deg sa xaftaan defal ñeenti peelu suuf nga ñëw joor ci et gi kere googa ci gigis gi ñun ñoo ko sakk yaa ko dog nañu joob toog fii kumba njuug toog fale Cheikh Ndigal ñëw na ba fii dugg fii taxaw fii yàgg fi lool kaar faal ma dégg damay sa bi kumba rek dam jakari góor ñi yàlla na fi yàgg semu ci mbaan ya em gi ma teñey gi la yoon ba ma joor xam gi ma teñ gi mi teñ juuf xam gi ma teñey sa njamal yeen juuf yeen xam gi ma teñ yoro wali ma de yaa teña damel yoro wali ma de yaa teña damel asa njamal yeen juuf yeen em gi ma teñey kulwo teña ndoven gimi teñ jub xam gima teñe yoro wali jo kulwo teña ndoven semu cimban yangur xam gimo teñoy sa njamaleen juven xam gimo teñ ñoo fii ci somb fi sama yaayaande koddu dëkkoon ci këram gi fi mu doon sey fi mu juddoo keram gii nag ngeen gis mu daanu nii xappatiku yëpp seng yëpp naaw nañ mu nekkoon kër gu rafet kër goo xam ne dañ koo clôturer woon bitik bu rëy boo xam ne village natal yi yëpp fii lañ doon jënde ay bagage du ciment du kenkayeri du dundu du magasin yëpp fi la nekkoon ay mango ay guyaab ay limon ay ñambi teen baa ne ca biir teen boo xam ne ci lañ doon roote yëpp waa bi foofu lañ doon roote Léopold Sédar Senghor mbaat maan yaakaan xole maan yaakaan mbaat maan yaakaan xole maan yaakaan yaakaan o ndimaa joox o ndaan manga siga seengoor ne jongoor yeef xole maan o ten damu papa jaar bo soso akka ɓombutoxe mbal ka ƴangi se'engoorey yakano ndemajo léopold sédar senghor léopold sédar senghor may ko kër gi ñu ñibbisi ci maak sama ñoom papa ak sama mbokki ñoom papa ak sama doomi yaay yeeg ay mbokkam yëpp xejoon nañ ci biñ demee nag ba mu daanu ba sama yaay dem nga njaay Ablaye Wade Fara Wade Ndiak Yuxum Wade Ndiak mu jël sama yaay ma ko audience baax lool Wade ne ko yande yande gëj naa laa gis de di ko raay mu ne ko waaw waaw Wade booba benn tey maa ngi bëggoon a toog ak yow waaye dama bëggoon nga may ma kër mu ko yande duma la may kër Ndakaaru sa kër gi la Senghor mayoon te mu nekk somb moom laa lay defaral ba mu mel ni këru ndakaaru ba dàq kër ndakaaru ndax dégg naa dafa daanu dafa naaw sama yaay ne ko walaay wadd de boo ko defee dina baax ndax kon maak sama njaboot yi niñ fa xeje woon yëpp dinañ fa xej mu ne ko dinaa la jox kër gi dinaa la may oto booy daw diggante réew mi di ñëw fu la soxlaati nga dem booba benn tey nag yàggul dara sama yaay gaañu ñun nag ñu ngi koy xaar njabootam baa ngi tasaaroo amuñu doole bu ñu defaree kër gi. yaakaan mbaat maan yaakaan xole maan yaakaan yaakaan ondi maajo onan manga siga seengoor wonjo ne jongo biir xole maano taano damu papa jaarix boo soor wa kaba mbutoog ye mbal ka jàngi seen moor yey mbokk yi loolu ngeen seen mooy bàmmeel bi ak ñu nu àndal dem ci fi nga xam ne mooy kër gi ko Léopold Sédar Senghor mayoon jaar fi ma leen wax léegi Fandaan dem cuucuun jóge fa dellu dellu jaxaw Léopold Sédar Senghor kër gi mu ko may kañ la daje ak Yandé Codou mi ngi dajee ak Yandé Codou fu ñuy wax Fatick am na ñu ci wax ay wax ñii ne nañu keroog ba Théophile James di def meeting ca Gossas la daje ak Senghor ñeneen ñi nee nañu loolu yóbbu ko fa woon am lu ko fa yóbbuwoon woon ko ko fa yóbbuwoon mooy aja Mam Pend Mbodj moo amoon céet fa amoon ñu yóbbu ko fa meeting ba fekk ko fa mais lu mën a am foofu loon daje ci Gossas woy jib jàpp naa ci ñi ma dajel ci bi may gëstu ci Yandé Codou ñu ne ma dafa mënoon a woy ndax bàjjanam ñi laan jóob la daan àndal muy woy waaye Yandé Codou ku mënoon a fecc la ba mu duggee ci géew ba ba pare ba toog ànd ak ñi bàjjanam ci woy ci la ko Senghor seetlu ni leen wool leen ma xale bale toog ñu indi Yandé Codou ci Senghor mu nuyu ko ni ko demal nga may ma ndox mu génn dem may ko ndox ñëw la mu naan des nit ñi ni ko may ma ci Yandé Codou tuuroo ndox mi ak i mbubbam mu tooy mu sumi ko changé waat te ñëw ndax on peut faire la liaison entre Senghor poète et Yandé Code traditionnaliste chers téléspectateurs avec sa voix grave de contre-alto el arrivait toujours à subjuguer les cœurs les plus irrésistibles Yandé Code du tey ci plateau bi ma indi ku nga xam ni xale la am na fu mu jaar am na lu mu mel Malick buum googu nga yëkkati dama ciy bañ a taxaw ndax damay bay guddee ndax yoonu ndaw du gaaw waaye li wóor mooy ki nu teg tey ci plateau bi war na fi teew ndax mi ngi tudd Mohamed fay ci melokaan am na nu mu wuteeg ñun bërki démb bi fi Salif te ñëwee la ko woo mu jógee fi nga xam ne mooy Fatick ñëw lan la woon ñu ni nanu fexe ba ñi nga xam ni yàlla daf leen bind nu wuuteeg sunu bos ñu leen di wone albinos muy puune ci olof ñu fexe ba dimbali leen di wax ba nu am produit bi ni diw crème bi ni diw seen yaram le talent n'a pas de sexe le talent n'a pas d'ethnie le talent n'a pas de famille chers téléspectateurs écoutez cette voix grave